dal leen ak jàmm mbokk internet yi ci diggante ndakaaru ak poroxaan métit wu tiis dal na ci ci kër diine yëpp rawatina bu murit yi ab accident bu métti bu am moo yóbbaale bakkanu kile di sëriñ abdourahman fall tilala sëriñ ñëpp Wally Ballago Seck ak salaam Diallo wan na ginnaaw àdduna àllarba ñeenti fan ci weeru mars tum 2020 ci diggu njolloor dapp fukki waxtu ak ñett naaj bu tàng jë la benn ci pënëb wotop kilifa boobule dal di toj di ko waral di tàngaayu tali bi ak yoon ca noonu ci la damar ba dal di saaraan wàcc autoroute Ila Touba ba dugg ca ñaay ba waaye bi mu dawee ci lu toll ci téeméeri meetar ci lëmbakoo ba fi ñuy waxante ne ni daanaka la des ca oto wa kenn mënu ko nettali la ca kanamu woto ba ak benn ci pneu yi daanaka ñoom fañu dal yi fu sori la sax weer yépp dal di toj tasaaroo la des ci ay weñ ci bile daamar mooy wane ne bile accident accident bu métti la ñu àndandoo seetaan ci bile vidéo accident bi nga xamante ne ci la sëriñ bile di Abdourahmane Faltila la ñàkkee bakkanam moom ak soxnaam Fatou bintu gay ak sax waayam ba loxo ndeyjooram Boubacar Faye moom sëriñ Ousmane la Tilala laata ñu koy jébbal boromam defaral nañ ko ay wàccaayam fële ca l'hôpital principal bu Dakar ci teewaayu njiital politique yu bari ku ci mel ni Boun Abdallah Dionne ministre Augustin Tine Mbaye Ndiaye Madické Niang ak sax mbakki yu fay ànd ceeg waa kër sëriñ bi ay xaritam jegeñaaleem ak yenn ci ay taalibeem moom sëriñ Abdourahmane Fall Tilala ko denc ca almeeru Tuuba ya di Baqiya foofee la ñu denc itam soxnaam si nga xamante ne moom la àndaloon ci boobu boobule yoon ngir jëm poroxaan laata loolu xalif général des mourides di sëriñ Muntaxa Mbàkke jot na joxe ab ndigal ngir rek ñu yóbbu ko ca poroxaan jullee ko ñaanal ko woowulee waxtu ki nga xamante ne moo nekkoon waayam nekkoon xalitam di Boubacar Faye ñu gën koo xam ci bu Faye moom ña ngi ko denc ca village ba nga xamante ne fa la juddoo Tacticom mu ngi jébbal njaalama waa kër Serigne Abdourahmane Fall Tilala di ko jébbal la ay soxnaam ay doomam ay taalibeem ay jegeñaaleem ak xaritam waaye sax Sénégal yëpp di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana fa mu jublu yàlla na ko gënal fuuf fi mu jógee moom ak ñi mu àndal sëriñ Abdourahmane Fall Tilala dem na tiis la bàyyi ci xolu sénégalais yi nga xamante ne dañu ko bëggoon jërë ngeen jëf بدا لي مخاطبا لمن جود ولي خادم أخجل الأدلى لك سقوى تقديم يا خير سيد للواحد الخير رب الورى جل لك للمولى مال والخير كلها بسم الله يكفيني أدار يا الله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 fawzi bi ma si tuusi duniyaaka yàllaaw antaaday murasi ajo bi ramati ala ulaaqiya dur ran minka yàllaaw antaaday murasi أرجو برحمتي ألا أولا يدر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا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 جمعت يا الله أنت العزيز الذي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الإداء بلاسي لاخترت يا الله كليتني كل في كبر بلا كل يا متكبر برور الكل يا الله يا خالق الخلق لغ ما أساء أبدا بالبر والسر والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدونا سن وخلي ajralil jamaati yàllaaw asal musawiru qal lilil nabi bu la ñoo xam dafa bëgg dafa am unité bëgg mën fédéré ba pare aussi équipe bi koo xam ne ci France waral na la fii nga nekk njiitu réew dafay ànd ak yow parce que dafay seet li nga xam ne moom mooy dogalu borom bi suñu borom mooy fale mooy folli donc ba di taxay bam tax la moo tax day ànd ak yow donc moo tax moo donc dina wax ni dafa CCC, bon, tout ce qu'il peut faire euh, est en français. Bah, simplement, voyant que le meurtre par le CCC a remporté la restriction. Maintenant, je parle au nom des mots du Sénégal. C'est pas seulement des mots en tant que mots. Il y a des mots cool, il y a des mots serrés, il y a des mots d'or, il y a des mots Tous les 14 du Sénégal, il y a des gens qui se nomment mots. de 100 joueurs. Maintenant, après on fait la lui, c'est un rassembleur grâce à lui. Tous les morts du Sénégal, que ce soit Séré, le membre de Paul, voilà, euh, qui se sent qu'il y a un descendant mort. Donc, euh, lui, il a créé pour une association nationale. raison pour laquelle en 2011, il y avait beaucoup de tiraillements concernant la On a été un grand ensemble général, on a nommé un autre qui s'appelle Elas Baboufal, il a Darum qui se parle à son nom et au nom de tous les morts du Sénégal. Bon, que le Dieu accueille dans son palais. Et en tant que fédérateur, il était quelqu'un qui fédère, qui vit respectueux en nous regardant comme ça, qui pense à Ibrahima. Parce tellement que, si il parle, si même, si même tu prononces le nom, c'est Ahmed Bamba, il se pousse immédiatement parce que il a son sang qui coule avec le nom de Ahmed Bamba. Merci. Vraiment, la, la délégation, rencontre du jour. salaamaaleykum. ayca ñu dem c'est bon. waaw dañu ma déplacé nii. salaamaaleykum. ay doomu jirim rek ñoo xam ne moo yor seen baay ba ñu génn ak ñoom ñu doon yor leen ci kër daqal leen jabar teg leen ko ay ak ñuy teg ñun ak la bilaal bi ñoom ñu ko seen ak la bilaal boo xam ne su ma amee naq moo ci jox seedeel nañ ko léegi mu nekk koo xam jàppale ndaw li ci ña ci ñàkk kuy liggéey surtout lu mu def tey bis baax gëstuwul ko moom sama base bi ko nekk nii li ma tege bu yàgg ma ne ko Serigne Abdourahmane Fall ci laa def ma place bu fay yàqu mu ne ma demal nga toog te lépp lu bokk man dama su ma fa jaarale lépp lu fay yàqu-yàqu day day daal di defaru am naa ñàkk ñun ñu leen di ñoom ñàkk kenn sëñ ko ci laa def mu xam moo ñu dugal ci diine ku xam may maa ngi waaye loolu bi ñu am téye man da ay jëm bu baax jar baat Serigne Fall Touré su ma jëlee ci kaw

man gisuma manqué